bokk taalibe yi noo ngi leen di ziar bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm di am mbégte mu yaatoo yaatu nag wax dëgg yàlla sunu xool sedd na lool li ko waral nag mooy euh, ñi nga xamante ni ñoo jiite daara ji naam ci lañ bokk waaye administration bi ak jëwriñ ji def délégation bu mucc ay dikk fekk si ñu xool si liggéey bi niñ koy doxale maanaam euh, waaw góor du dindi coono waaye dana dolli njàmbaar euh, loolu nag xam naa ni li may yëg. jot naa ni moom la mbokk taalibe yi nekk ci waañ bi yëpp di yëg danañu gën a dolli jom gën ñu dolli pas-pas gën ñu dolli cawarte ba ñu gën a mën a mottali liggéey bi ci ni mu gën a muccee ayib yàlla dogal na nag ay ci bëccëg def na ay ceebi jën macha allah yu neex ba ñëpp di ko wax bii dafa xonq bii weex euh, bokk taalibe yi barkeelu ci bu baax macha allah fi mu toll nii ñu ngi toll ci waajal reer ñu waajoon ay dibi diggante ginaar ak xar mu mel ne euh, bi jëwriñ ñoom dikkee saytu nañ liggéey bi xool ko fi mu toll nii yu sotteegul waaye am na ay appréciation kon daal am nañ fierté bu baax a baax ci bokk ci liggéey bu Majmahun Nurayni te bu fekkoonte ni sunu borom daf nu jox moyens yi dañuy wax bokk taalibe bi yëpp nu toog benn barab nu waajal leen bernde yu mucc ayib ci nan ko taamoo nan ko bëggee di leen ko jox waye itam gannaaw yëfi mbolo la ku ci nek tabal deureum ñaar fukk téeméer jooni ñi am doole yaram def seen doole yaram sha allah kon dal alhamdullilah santati nañ bu baaxa baax liggey bi mi ngi dox yalla nañ ci tassé ngeureumal sëriñ bi ba lepp luñ ci seenu rek wax deug yalla ñu tonawu ci suñu njabot ak suñu setat sax di wéyale liggey bi barke Cheikhul Khadim kon ñu bayyi yi ñu tàmbal seen kàddu te yokkaat ca barab ya ndaxte liggéey bi ñu ngi ci kawam daal jamono ji. ñu ngi fii ci quartier général bu commission santé ci njiitalu Serigne Gora Thiaw muy euh, commission bi nga xamante ni mooy saytu wérgu yaram doomu aadama yi muy waa daara ji ak mbokk taalibe bi nga xamante ni ñun ak ñoom ñoo seq barab bii di Darou Tanzil ñu fi amale màggalu Serigne Touba gi nga xamante ni moo ko wooteel boppam. defal ko boppam santaane ko eh, képp koo xamante ni mbégam sa mbég la bu bis bu dellu seetee na nga ko ci santale suñu borom sant gi nag dafa bëri ci fànn yu bëri mu ci wàllu xéwlu gi ci wàllu li ci jiitu alxuraan jee xasida yi waaye ñii yor ci pàcc bu ama am solo muy sant gi ndax ku ne xam na ni fu am mbooloo di daje mbirum wér gu yaram moom des na ko fa tudd mhm. ñu daje nag suñu mbokk taali bii ñëwoon ci sand bi doon fi eh, visite si ñu la doon laaj eh, jëwrin sa yëg ci barab bi nga xam ne nii Euh, su ma juumul yaa ngi ko wax sànq ñëw nga fi daaw ren nga dikkaat fi ñàkkul ni am na loo fi yëg am loo fi remarqué ba bëgg koo jottali ci à travers euh, DMN TV nga xam ni mbokk taal bi nga xamante ni xëy na euh, teewul fi dina mën a seetaan loolu ba mën a bokk ak ñun yëg-yëg bi nga xamante ni ñoo ngi koy dund fii ci Touba Darou Tantil. mais barke Serigne Touba seen seen poussière seen pënd ñun mënuñu mënuñu ko gis ñu def vraiment am na impression bu baax vraiment dañoo bëgg ba xamatuñu def. dañ bàyyi ak Serigne Touba Serigne Touba mi borom bis bi yàlla na leen fay bosom boppam. billaahi wallaahi taala ñu leen xam dañoo kontaan kontaan boo xam te ni vraiment li ngeen def amul kenn nit amul seen fay yéen daal Serigne Touba rek moo leen man a fay yàlla na leen fayal boppam ci barke Seydina Ahmad yàlla na leen yàlla may wér may leen gudd fan may leen wéral wérle may seen njaboot ñu wér yéen ñëpp yàlla na ngeen gudd fan yàlla na fi yàgg di ko sax di ko def muy yomb lool lool lool lool ci barke Seydina Ahmad parce que lii yombul bàyyi seen liggéey ñëw vraiment def gratuite ah di joxe seen alal vraiment yal leen yàlla yombalal yal leen ko yàlla yombalal yal ko Serigne Touba yombalal ci barke Seydina Ahmad sallallahu alayhi wa sallam vraiment kontaan nañu trop nag bu ñu mënoon a wax lépp lii dañ koy wax waaw bëgg nañu lool. waaye bi nga xamante ni daara ji am nañ ko rawatina commission santé bi kon euh, li nga xamante ni Serigne bi woote na ko yemul rek ci yëkkati suñu alal jëf ko ci bis bi waaye suñu xam-xam ak suñu doole lépp dafa boole li nga xam ni dañ ko war a boole suñu alal. takkatoo ko indi ko fii ci bis bi ngir sant léegi nga sant sant googu nga xam ni sëriñ bi euh, digal na ko képp koo xam ne nii mbégam sa mbég la kon sëñ Gora du ñàkk yow ñu jël ci ay kàddu ndax euh, patient bii fi jóge lii kàddu yi mu yëkkati euh, yow mi dénk liggéey bi ñàkkul ni am na leneen loo xam ne da nga ko ci dolli muy ab soññee rek jëm ci képp koo xam ne yaa ngi ci biir daara ji suñ borom may la xam-xam boo xamante ni mbokk taalibe yi mën nañ koo jariñoo dañoo taxaw fii di wax ak yéen ci wàllu santé waaye am na ñeneen ñoo xamante nii ñi ngi ci yeneen domaine nekk ci biir daara ji kon kenn ku ci ne fa nga nekk jàpp nañ war nga faa mën a liggéeyal Serigne Touba ci xam-xam bi nga xamante ni yow ba nga koy sàkku jàpp nga ni liggéeyal Serigne Touba rek nga ci fas yéene def muy kon koom gi ñu jël di ko yëkkat di ko def ci daara ji waaye tam xam-xam bi nga xamante ni sàkk nañ ko ba suñu borom jox ñu ko ñu war koo delloo sëriñ bi kon sëñ góora ginnaaw bi nga xamante ni dégg nga patient bi euh, seede kàddu yi yow mi nga xam ne yaa jiite liggéey bi ñu ci la loon ci di la ci laaj euh, sa xalaat ak sa yëg-yëg bisimilah. sant suñu borom bu baax di wax alhamdulilah di sant euh, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat sëñ Tuubaa bu baax Cheikh Saliou Mbacké liggéey bi nag comme niñ ko defee daaw. ren jii tamit ñu ñëwaat fas yéene kaa defet noonu wala nu ko raw boo xoolee équipement bi tamit euh, ku xool xool bu daaw bi xam ne yokkute am na muy ci côté personnel bi di ci côté pharmacie bi comme mbokku taale bi fi jóge sànq ni mu ko waxee tamit ñun loolu rek moo ñu fi indi ñun rek loolu rek moo ñu fi indi incha allah rabi 17 tey jii ba suba 18 di jouru màggal gi ak 19 di lendemain bi bu soobee yàlla de 8 heures à vingt heures ku fi ñëw bu soobee dinañ leen xoolal sa wér yaram. may la garab te doo si fay dara incha allahu rabbi donc taxawaay bi daal ñun suñu ku nga xam ne ñun ñoo waa commission santé ñun dañoo jàpp ne suñ màggal fii la suñu màggal fii la amuñ feneen fu ñu jëm lépp luñ mën ak luñ mënut incha allahu rabbi ci baax bi lañ ko fi seen di ñaanit comme chaque année muy gën a dem si kanam kii bi di gën a personnel bi di gën a yokku plateau bi di gën a yokk incha allah ba ñu dem ba am infirmerie boo xamante ni daara ji moom moo koy moomal boppam carrément nga xam ne dinañ ci mën a def ay hospitalisation une mise en observation tout lépp lépp lépp rek muy euh, loo xamanteni wa waa daara ñom ñokoy ñom ñokoy jité ñom ñokoy def ci mbokku talibé duñu terminer nak té lu ñu nuyu suñu mbokku collaborateur muy wa Touba assistance médicale ku ne xam nañ depuis ñuy nekk fa ci biir Touba ba ni ñuy ñëw fi ci suñu siège bopp ñun nak ñom ñooy andal liggéey bi wax dëgg ñu ciy japp ci jappine bu rafet loolu ñu ngi leen ci sante di ko di ko jaay si turu seen jëwriñ sëñ Ablaye Sare ak mbokku talibé yépp vraiment ñu ngi kontaan bu baax ci teewaay bi di ñaan saa borom gën yokk taxawaay ak mën-mën bi ba ñu ko yàgg gën a àndee ànd bu gën a rafet barke Cheikh Saliou jërëjëf sëñ Bassirou jërëjëf sëñ Gora kon dañuy ñaan ci barke màgget gi yàlla na leen sëriñ bi te teeroog tawféexam wasalaamaaleykum wa rahmatullah muy impression yi nga xamante ni sëñ Ablaye moom lañ jël see woon fii ci quartier général euh, commission santé ñu àndoon ak jëwriñu mbooloo mi sëñ Mamadou Diakhaté ak le secrétaire général sëñ Omar Kanté waaye tam ak mbokk taalibe yi nga xam ni ñoom ñooy Euh, magi daara ji ngir di nemmeeku mbokk taalibe ci seen biir liggéey kon yéen waa Demen TV lii leen indiloon ci quartier général bu euh, commission santé di leen jox dig dege ca ci yeneen quartier général yi nga xamante ni ñoo seq liggéeyu màggal gi bu daara Majmahun Nurayni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.